الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suuratu tawba ci kàttanu borom bi tey ñuy jël ñeenti aaya aaya 75 76 77 78 ñeenti aaya yoo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal juróomi mbir juróom yooyu ba ca jiitu mooy wujub al wafa bil uhud wa xaasatan uhudullahi taala nañ jàng tey mbokki jullit yi war gi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala waral na ko ci ñun ñu respecté ñu fonk ak dig ñu fonk lépp loo xam ne waxante nañ ko ak sunu mbokk rawatina nag loo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko waxante ak ñun ñu respecté ko wa uufu bil uhud respecté leen dig yi bu dee contrat la bu dee pacte la bu dee wax la boo wax ak sa mbokk da nga ko war a fonk da nga ko war a respecté rawatina aqu yàlla tabaraka wa taala moo tax boroom xam-xam yi yàlla na nu leen yàlla fayal ñu ne pacte yooyu ba ca jiitu mooy pacte bi nga wax ak yàlla ñun ñëpp xam nañ ne waxoon nañu ak sunu borom ba mu nuy wax ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ñun ñëpp dañ ne woon bala ndax duma seen borom ñun ñëpp ñu ne ah kay ñu daal di ñëw ci kaw suuf suuf si neex ñu topp ñu topp pomi daal di fàtte sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mbokk yi bokk na ci zammul buxlu mooy ŋàññ nay wa ahlihi ak ñoñuk nay jullit du nay jullit du ŋoot jullit day tabe ci alalam ci kàttanam ci xalaatam ci xam-xamam jullit du nekk ku nay jullit du nekk ku ŋot albaxiilu laa yadxulul janna ku nay du dugg ajjana ñu bari ci doomu aadama yi ci ndaw yi dañ naan suma yàlla mayee suma suma suma suma waaye bu leen yàlla mayee kenn du leen gis dund naa fi ak ay jeunes ci bidaayatu daawa ba fii nu toog ay ndaw yoo xamante ne matoon nañu ay centaine ku ci nekk danoon wax bu ma yàlla mayee ñoo ñëpp kenn gisatu leen tey ci toolu yàlla bi waxuma laak sax nag di di ci def loolu moom man dama ko dund teg ci samay bët ay nit ñoo xam dañ doon dañ doon wax ñaanal nu rek tey kenn doo ko ci teg bët loolu musiba naaru laay la ba ca tegu mooy taqrir mabda anna sayyi'a yatawalladu anha sayyi'a dañuy saxal principe bi dañuy saxal lu bon lu bon rek lay jur kenn mësta gis lu bon lu baax juddu ci moo dañuy tere ku nekk ci lu bon jullit dafa nekk ci lu baax di jëf lu baax di dox lu baax di ko wax sori lu bon ndax lu bon lu bon dong dong dong moo cay juddoo kenn mës a gis lu bon lu jur lu baax jamais kon képp koo xam ne mu ngi ci lu bon dégg nga sax dañ lay wax ne même booy takk soxna util ku baax booy ut jëkkër ñu ne utal ku baax bu ut ay dëkkandoo ñu ne utal dëkkandoo yu baax dama dem Casamance fan yii di fa def waxtaan ci wax al wax aqu dëkkandoo ma nettali leen benn xale boo xamante ne dafa faatu yaayam di gént tout le temps xale bi di ko feeñu naan ko yaay toxal leen ma fi ngeen ma suul ndax ki ma dendal daf may lor toxal leen ma ndax ki ngeen ma dendal daf may lor te ay néew lañ ci biir armeel yaa ji di gént loolu tout le temps bi ma paree waxtaan wi bilaalu jàkka ji ñëw ba ci man ni ma vidéo baa ngi nii bi ñuy sulli xale boobu vidéo baa ngi nii France la woon vidéo baa ngi nii ndeke mu ngi ci internet bi bi ñuy sulli xale boobu di ko toxal di ko dindeeg dëkkandoom boobu nga xam ne malaaka yaa ngi koy lor ci biir bàmmeel bi waxtu wu nekk moo tax ñu ne dëkkandoo bu bon baaxul jaaru suu qitaatun minan naar dëkkandoo bu bon dogitu safara la loolu lu bon baaxul ba ca tegu mooy jawaaz taqri wa taanib ahlil baatil daganal giñ sunu diine tag daganal léeg-léeg nuy waxtaan ñu joxe misaal ci nit ñu bon ñi wala sax ñu tudd seeni tur tey booy xutba jumaa wala ngay def benn conférence wala nga nga tudd benn tur ci kàccoor yeeg saay saay si ak ñi bëgg a yàq àddina bi ak ñi bëgg a yàq jub jikko doomi jullit yi ñu ne la non bul tooñ bul tooñ lañ lay wax maa ngi déglu sànq benn sëriñ bu ñu ma envoyé vidéo bi mu ne léeg-léeg nit wax dëgg te day fen ndax daa wax lu yoonam nekkul loolu nu mu nekkee ah mënul nekk nga wax dëgg ba pare fen parce que ñu ne da ngaa wax lu seen nekk gars yi di def lu bon nga soo ko dénoncé ñu ne ñu ne ñu ne yow li nga def seen nekk ci non da ngaa war a maandu quoi da ngaa war a maandu ban maandu suñ maandoo julli di dem safara bi naka la ñu mën a jàppee julli di di leen sànq soo waxee ñu ne maandul waaw mënul nekk képp ku wowul jullit ñi ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah di leen woo ci ay pecc di leen woo ci yaramu neen di leen woo ci lu bon naka la nit ñi di noppee ñu ne ba waxee ñu ne da nga war a maandu mais mënut a nekk kon foog ñu leeral ne yow li ngay wax jullit yi du diine démb lañ ma yónnee benn vidéo ay nit di tàccu naan ñun suñu sëriñ jigéen la ku am lii xaw ma la koy xaw ma xaw ma woy bi nu ñu koy woyee ñun suñu sëriñ jigéen la xaw ma ku am lii looy wax ñun suñu sëriñ jigéen la di fecc sëriñ bu jigéen bu doon sax sëriñ boo xam ne ndeysaan muuru na jàng na alquran waaye sëriñ bu xeesal sa ta ta ta ta tegalu mu sóoram di nuroog jabaru firawna nit nit non man man damay jéeg-jéeg yenn saa yi ma ma ma ma jaaxle daal ci sénégalais yi ndax dëgg-dëgg sénégalais yi xel a ngeeg ñoom xel xel xel ngeeg ñoom sëriñ bu jàngul Sénégal nga koy gis sëriñ bu mokkalul dara ci alxuraan sëriñ bu jàngul fiq du jiite juma du waaraate du jàngale xamul xadis si yonent bi Sénégal nga koy gis ñu ne sëriñ la ma defoon woon sëriñ day jàng wala baatu sëriñ xam ngeen lu muy tekki sëriñ sëriñ dañ ko gaawal rek du sëriñ de mooy kuy saye njariñ kuy saye njariñ maanaam day jàngal nit ñi lu baax ñu ne kii sëriñ la day saye njariñ comme baat bi def ñu ne sëriñ mooy saye njariñ waaw léegi nag ku sayewul njariñ nag sëriñ nga ah loolu moo am Sénégal di sëriñ yoo xam ne xamuñu dara ci diine fiqu yàlla bi diine sariyaan xamuñ ci dara koo ci posé question du la tontu wala ñu ëpp ci ñoom boo waxee ñu ne yéen waa maandu leen jël taalibe yi rek dugal safara loolu moom mooy diine sëriñ bu jigéen boo xam ne mokkalul faatiha xamul lu ñuy sangoo set ay farataam xamu ci dara ndax bu xamoon farataam dina xam ne moom war na nekk sëriñ ay ba ta nit ñi yow di ko sukkal ak di ko raamal ak di sujjóot ci ay tànkam maa ngi poster bi mu ngi nii sama portable waxuma laa ngi boole ci ay way di ko tàccu sunu sëriñ jigéen la di tëb ba ci kaw ay góor ñëw ci kanamu jigéen di fecc waay waay waay waay waay waay ñun ban ban ban ban at ban diine la ñuy dund est-ce que lii la Seydina Muhammad yoroon lii moo taxoon yàlla yónni Muhammad ah waaw ñun war nañ toog ba ci àgg ñun ñëpp ñu laaj suñu bopp ndax dëgg dëgg dëgg dëgg diine ji yàlla joxoon Seydina Muhammad ndax ñun waa Sénégal moom la ñu yor waaw te suñu yorul boobu nag dañuy sonal suñu bopp loolu mooy diine lu dul loolu du diine bu yeboo ñu wax ko ci kaw lu wuuteeg lu Seydina Muhammad indi woon ku ci nekk booy dee di dem safara teru sax ñu ci ñu koy ñu koy raay ndax li yàlla yónni woon Muhammad moom mooy diine lu dul loolu du dara yàllaa ko wax dafa leer wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu ittabi'u ma unzila ilaykum min wal ay aaya la yu dul jeex yàlla nee na li ma leen indil topp leen ko bu leen topp bànneex bàyyi leen topp ñall yi wa anna haza siraati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula baat boobu dafa leer yàlla nee na lii mooy sama yoon topp leen ko bu leen topp ñall yi bu leen topp yeneen yoon yeneen yoon yi nag leer na wala yonent bi ba muy firi aaya bi dafa jël benn bant bu mag rëdd mu ne yoonu yàlla baa ngi nii mu def ci côté bi ay yoon mu ne yeneen yoon yaa ngi nii ñall yi mu ne benn bu ci nekk seytaane moo ci toog di woote ku ci topp rek boo dee dem safara yeneen dafa mel ne ñun dégguñu loolu tey bu ñu nee yàlla nee na wala yonent nee na dañ di daan non diw nee na diw ku ko yónni d'accord nañ diw nee na nangu nañ waa léegi kooku ku ko yónni lii muy wax nit ñi lan mooy dalil bi ci loolu luy dalil bi lan mooy dalil bi ci waa ji lii mu indi ne war nañ koo topp nañu indil ci alxuraan nañu indil ci sunna yonent bi moom dañ ko war a topp wala moom hmm? yàlla wax na ci alxuraan wa ma arsalna min qablika yónni wuñ la ca ña la fi jiitu woon ak ñi mujj illa rijalan lu dul ay góor yàlla musta yónni yonent bu jigéen ba ñuy seexal ay jigéen nag ñu toog di remplacer di fecc naan suñ ñun suñu sëriñ jigéen la nu sëriñ jigéen la allahu akbar di fecc juróomeel bi mooy wujub muraqaba muraqabatullahi taala li war ci ñun mooy ñu fuuglante ak yàlla fuuglu lan mooy fuuglu ñu xam ne fu nu nekk yàlla ak nuy gis gis nga nit rawatina ab jullit boo defee sa bopp foo nekk yàlla ngi lay gis looy wax yàlla ngi koy dégg say génn ak say dugg lépp yàlla gisu yàlla mu ngi ci tegu nor normal nga rëcc nga ki perte mooy kii wéet dafa ne moom kenn fa nekk yàlla nekk fa wala yàlla gisu ko kooku perte na loolu mooy muraqaba di fuuglu yàlla nga xam ne foo mun a nekk maa yakunu min najwa salaasa illa wa huwa rabiuhum wala adna min zalika wala jeex na takk foo nekk nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mu ngeeg yow wa huwa maakum aynama kuntum fu ngeen mën a ne yàlla nee na maa ngi fa ak yéen kon kenn mënta raw yàlla tabaraka wa taala soo xamee loolu da ngay nekk ci lu baax lii mbokk jullit yi mooy tey dars bi ñuy jël mu nekk ñeenti aaya sunu borom subhanahu wa taala diñ ko jàngal ci suratu tawba mu ne wa minhum man ahada allaha ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
wa minhum man ahada allaha من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أحلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
allah yubarik fiik jalla jalaaluhu sunu borom nee na wa minhum am na ci ñoom ñoom naafiq yi ay almunafiqin waxoon nañ semaine yee passé lan mooy nifaq ak ñan ñooy naafiq yi sunu borom ne wa minhum am na ci ñoom ñoom ñan naafiq yooyu koo xam ne ñoo xam ne man koo xam ne ahadallah diggante na ak yàlla wax na ne man kat bu ma yàlla defalee lii danaa def lii bu ma yàlla maye alal dinaa tabax jàkk bu ma yàlla maye alal dinaa bënn teen bu ma yàlla maye alal dinaa dimbali julli ñi bu ma yàlla maye bu ma yàlla bu ma yàlla wéralee dinaa def nii bu ma yàlla bu ma yàlla maye lii ahadallah dig na yàlla moo ko coobarewu kenn forcé wu ko moo toog ba mu neex ko mu ne man bu ma yàlla defalee lii dinaa woor nangam wala dinaa saraxe nangam xam ngeen ne loolu maamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam defe na defo defoon na ko ah ne bu ma yàlla mayee nangam dinaa rey kenn ci sama doom yi yàlla may ko loolu mu teg benn tirage kan la war a rey affaire bi dal ci papaay Muhammad allahu akbar te kooku la gën a bëgg ci doom yi bi mu laajee borom xam-xam yi ñu ne ko da ngay rey téeméeri gëléem mu remplacé ko téeméeri gëléem kon jullit soo diggee yàlla fexeel nga respecté li nga dig yàlla soo diggee doomu aadama yi sax da nga ko war a respecté waxuma laa nag nga diglanteeg yàlla ñaata ci ñun ñu naan bu ma yàlla mayee semaine bee passé am na benn xale bu jigéen bu ma laaj mu ne ma sama benn mbokk dafa feebaroon wala dafa doon tukki mu ne bu tukkee ba ñëw ba rëcc ci jàmm incha allah mucc dina woor une semaine waaye mu woowaat ma mu ne ma dafa mënta tegale une semaine bi li nga wax yàlla loolu ngay def de une semaine une semaine deux semaines deux semaines ñaari weer ñaari weer benn weer benn weer da ngay saraxe nangam nga saraxe ko da ngay tabax nangam nga tabax ko parce que yow yaa ko waxanteeg yàlla yaa ko dig soo ko defu rek da ngay nekk naafeq wala nga am benn xàmmekaay benn na mandarga ci mandarga naafeq yi ndax wa iza waada axlaf sunu borom ne wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne man koo xam ne ahada allah dafa digganteeg yàlla la in aataana min fadli cey bu ma yàlla mayee xéewal maalan kasiran alal ju bari man gars yi xam ma waaye ñu bëri dañuy wax loolu yàlla may leen ñu naan ah waaye non bëri boo ci joxee day day kii de day cóol de ndeysaan am na histoire bu borom xam-xam yi di nettali ci saala ba am borom xam-xam yu koy saxal ñi ko ëpp nag ijmaa moom dañ koo saxal waaye borom xam-xam yi mujj yi dañuy weddi xissa bi waaye ijmaawul umma moom saxal nañ ko ñu ne saxaaba bi da doon julleeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu sëlmalee rek jóg daw sëlmalee rek jóg daw bu sëlmalee rek jóg daw yonente bi woo ko ne ko yow lan la mu ne ko man kat damaa bëri lewul benn yére bi sax laa am moom laay daw jox sama soxna mu sol ko julli yonente bi teg maa ñaanal yonente bi ne ko baax na bàyyil noonu rek mu ne ko non non il faut nga ñaanal ma yonente bi ñaanal ko affaire yi commencé bëri xéewal gi commencé ñëw jur yi commencé bëri ci kër gi affaire yi di bëri di bëri ba waa ji commencé di tëb waxtu yi ndax toppatoo xar yeeg béy yeeg nag yeeg géléem yi day tëbal léegi waxtu daan julli si juróomi waxtu léegi day tëbal bu ñëwee tis suba du ñëw tisbaar bu ñëwee tisbaar du ñëw taksaan bu ñëwee taksaan du ñëw timis bu ñëwee timis du ñëw gee ba ci yàgg julli suba rek lay ñëw ba ci yàgg mu toxu ci dëkk kër gi dëkk ci ginnaaw dëkk bi léegi ajjuma ba ajjuma lay ñëw affaire yi bëri mu dox ci foofu dem digg àll ba léegi tabaskee korité lay ñëw affaire yi bëri mu toxuwaat léegi nag kenn gisatu ko azaka wàcc yeneen bi ne yónni ay saxaaba dem leen ci moom ngeen jàng aaya yi biñ ñee gaa yi wax affaire yi ba pare mu ne dafa mel ne daal impôt ngeen bëgg a jël impôt impôt daal ngeen bëgg a nangu jëm ba jaag mu ne waat dem leen bu ngeen di jëlee ci yeneen dëkk yi après bu ngeen di ñëw ngeen jaar gars yi ñëw ne ko ah ñibbisi nañ de mu ne dem leen dinaa ko indi ndeysaan yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu séenee ñi mu yónni ñi ñëw mu ne yaa wayla saalaba egsee guñ de yonente bi ne yaa wayla saalaba saalaba alkuna mu toog ba mu neex ko sahaaba yi yonente bi laaj sahaaba yi ne anam ndax jox na leen ne joxuñ de nee na dina ko indi du ne kii alkuna mu toog ba mu neex ko mu indi ko yonent bi ne ko du ma ko jël yonent bi génn àdduna Aboubacar toog mu dégg ne Aboubacar a ngi fi moo fi toog mu indi alal ji yonent Aboubacar ne ko lu yonent bi jëloon Aboubacar du ko jël. Aboubacar génn àdduna Ousmane Omar toog mu dégg loolu mu daw indi Omar ne ko lu Babacar jëlul woon yonent bi jëlu ko Omar du ko jël. kon doomu aadama loo waxanteeg yàlla bu yeboo nga def ko gis ngeen ñii lu ñu wax lan la ñu wax moom moo ne woon la in aataana min fadlihi cëy bu ma yàlla mayee ci ay xéewalam lan laay def mu ne lana saddaqanna dana nu saraxe gis nga ñoo ko wax dana nu jël sunu alal laam bi laamul qasam la dafa waat wallahi gis nga nuun bi nuunu tawkiid lana saddaqanna giñ nañ ci màggaayu borom bi bu nu yàlla mayee alal ji dinañ ci génne def nangam yàlla may ko alal ji mu naan mais waaye donc alors c'est que baratatata turudu di wër fekk yoo li yàlla waxoon loolu lay daw te moom moo ko waxoon bu ma yàlla mayee su ma wéree da ngay dégg ku feebar ni man kay bu ma wéree incha allah dootuma tardé jàkk mu wér commencé naat c'est que gis nga di wokk doq waaw ndeysaan bu ma yàlla defalee nangam ñu bëri dañ koy def bu ma yàlla mayee bag dinaa woor bu ma yàlla mayee yàlla may leen ñu defa ne affaire bi ay hasard la fekk yàlla lay may di la nattu xool ndax li nga waxoon di nga ko def wala doo ko def baax na yemuñ ci ne lana saddaqan na waaye wala nakunanna min as-salihin danañ góorgóorlu def effort ba bokk ci nit ñu baax ñi allahu akbar gis nga digg a ngi nii nag dig kii dafa dig yàlla moo dig yàlla ne bu ma yàlla mayee giñ su ma yàlla mayee alal dinaa sarax su ma yàlla may alal dinaa def lu baax su ma yàlla ñaata président ngeen fee gis ñun bu ma bu bu bu ma yàlla dimbalee ba ma falu ah bu ñu faloo kenn dootu leen gisati dañu waxoon yëpp ñu teg ko fale sànni ko ci xaj dara lañ ci dul def ñaata yoon ñaata yoon ngeen dégg na ku daan bu ma faloo même mairie yi mairie yi nangam yi ñoom ñëpp bu ma faloo bu ma faloo bu ma faloo bu ma faloo su la nit ñi jàppalee ba nga falu ak li nga waxanteeg yàlla di ko ñaan guddeeg bëccëg yónnee fu nekk ne ñaanal leen ma yàlla may la nga falu nga fàtte yàlla fàtte jaami yàlla yi nga defa ne doo dee mu ne fa lamma aataahum min fadlihi ba leen yàlla indile ay xéewalam may leen loolu ñu doon wax ndeysaan bu dee wér gu yaram la bu dee alal la ba leen yàlla mayee loolu baxilu bihi ñu nay gis nga baxilu bihi ñu nay dagg seen loxo yi ci seeni to téng fële cooj poqotaan la ñuy dagg loxo yi gis ngeen texte bi ni mu leeree fa lamma ba nga xamante ne aataahumullah aataahum yàlla may na leen indil na leen min fadlihi ci xéewal yi baxilu bihi nu nay ŋot waaw soo leen koy fàttali sax ñu naan la non waxuma woon loolu waaw dama noonu rek bu ma yàlla mayee mu nga gis nga fekk ñoom ñoo ko waatoon ne bu ñu yàlla mayee bu ñu yàlla dimbalee bu ñu yàlla taxawoo yàlla defal leen loolu lépp ñu weddi ko taxaw fële sakk jëf baxilu yamuñ ci wa tawallaw wa hum mu'ridun ñu wane ginnaaw nag ndeysaan di dox di bonde tawallaw ñu dummooy wane ginnaaw mu'ridun du mooy yàlla tabaraka wa taala di dox di bonde di tëb di cëppi cëppi jël alal ji loolu ñu waxoon dinañ ko jox yàlla ñu financé ko ci ay caaxaan waaw defe ko leneen fàtte ne ñoom ñoo ñaanoon yàlla ne bu leen yàlla mayee bu leen yàlla defee nangam bu nu yàlla defee nangam fàtte loolu yépp borom bi nee na ndeysaan gis nga loolu la leen dab loolu ñu wax yëpp ñu weddi ko fa aaqabahum nifaqan allahu akbar ay fa awrasa al buxlu gis nga nay gi xam nga lu mu dugal ci seen xol yi ñu nekk ay naafiq soo nee yàlla rek ñu ne la non c'est que dañ koy xoolaat boo ne yàpp mbaam daa araam ñu ne dafa cher moo tax mun leen koo jënd rek mun rek ngeen araamal ko ah bon soo nekk génn asaka ñu ne lool lool lool loolu ak impôt benn la rek loolu loolu tamit nag war nañ koo xoolaan nag ma ma liggéey sama alal ba pare nag léegi ma ma koy joxe waat ah non vraiment wala ñuy jénne lu bon li di joxe lu bon li wala ñu xool li ñu waxanteeg yàlla dañ ci naafiq mooy koo xam ne li nga waxanteeg yàlla boo koy def sax du la neex même boo doon julli sax wa isa qaamu ila salaati qaamu wooy ah wooy ma jóg julli dénk dégg nga de wóoy ma jóg ctt gis nga même bu ñuy julli sax ndeysaan da ngay sentir ne ñii sawaruñu ci julli gi ñuy julli même waaw lépp lu ñuy def ci diine du parce que diine nekkul ci seen xol yi est-ce que ay naafiq lañ wala naafiq baaxul yàlla nee na fa aqabahum loolu jural na leen aw rasahum dugal na ci seen xol yi nifaaqan ak naafiq fan fi qulubihim ci seen xol yi noonu la ñuy mel ilaa yawmi yalqawnahu ba bis bu ñuy dajeeg moom di dee dajeeg yàlla ay naafiq la ñuy doon na leen yàlla musal kon nag na ku dee dajeeg yàlla fekk naafiq nga foo jëm safara nga jëm innal munafiqin fii darikil asfali minan naar kon mu nekk ay mbir yoo xamante ne war a xeex ak sa bopp ba jikko yii mu dañ gis nga alxuraan wax naa ak chaque jour ma wax leen ko alxuraan ñëw rek pour ñu koy jàmm di naan ak ak di ko def ay téere ak di ko def téere yoo xam dañ koy teg ci ay armoire non alxuraan daa ñëw pour ñu dund ko gis nga jikko yii lii doomu aadama yi def nga xam ne jaaduwut wax ko toll ne sa borom wax ko toll ne sa nawle mbokki jullit nangam ak nangam man kay dinaa laat mu ñëw ne la waaw bismillah affaire bi laa jël si woon nga naan ko non c'est que temps yi town bi neexul quoi parce que business bi xam nga doxul xam nga fekk da ngay fen xam nga ne yow xam nga ne bi ngay wax sa yéene moo doon kii da nga ko nar a dóor martu loolu musiba la mais nga wax ko wax ju neex ba waa ji am yaakaar dem ñëwaat nga naan noo xaaral nag ma changé position te yow xam nga ne yaa ko tey loolu jullit du ko def def ko yàlla sax kirim bi ci nekk waxuma la ak nag nga koy def jullit te yow xam nga ku nekk xam nga sa bopp balil insaanu ala nafsi moo tax sooy wax waxal li nga mën dinaa la jox dinaa la jox dinaa ñëw dinaa ñëw duma ñëw duma ñëw wa iza qulta naam fii daynin fa atimma boo waxee waaw waaw la boo fekkee mënoo nga ni la nga wax déedéet nga noppalu waa ji noppalu nga noppalu man de damaa ñëwoon pour nangam bul ko ne demal ba suba nga ñëw parce que boo ko ne demal ba suba nga ñëw day yaakaar mu xëy suba daw ñëw nga naa ko c'est que li ma yaakaaroon jotuma ci oh xoolal kooku ni muy découragé demal ba suba nga ñëw waa ji daw ñëw nga ne ko li ma yaakaaroon jotuma ci kon kay balaa muy balaa mu doon dem ne ko ah man de am na luñ ma dig su fekkee nag jox nañ ma ko dinaa la woo bàyyi fi sa numéro wala nangam waaye déedéet dama ba suba nga ñëw loolu kenn du ko def nit mu am yaakaar gu rëy tem sax yenn saa yi nga dégg waaj ko ne non demal nga leb demal nga leb après su ma joxee nga fay waa ji dem leb mu ñëw nga ne ko non c'est que li ma yaakaaroon jotuma ci te leb na ba pare ñu ngi koy xaar tey loolu am ci dëkk bi loolu am ci dëkk bi di dóor nit ñi ay martu ci ay dig yoo xamante ne kenn xamul dinaa la nangam dinaa la dinaa la ay feni kese jullit dafa war a rus yenn yi jullit war na rus di wax lu dul dëgg loolu ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw ixwatal iman mu nekk ay aaya yoo xamante ne dafa ñëw pour defar suñu jikko pour am na mandarga yoo xam ne ak melokaan yoo xam ne bu ko doomu aadama melee dafay nekk naa fet borom bi nee na ñooñu noonu la ñuy mel ilaa yawmin ilaa yawmi yalqawnahu ba ca bis bi nga xam ne dañuy dajeeg moom bi ma axlafu llaha lu tax nag dañoo war yàlla dañoo war yàlla bi sababi ixlaafihim ma waadu llah ma waadu llah sabab bi nga xam ne mooy war nañu yàlla loolu tax ñu nekk ay naafiq kon ku war yàlla rek naafiq nga ci lépp nag yàlla ku ko bu leen yaakaar ne ci joxe rek la ñuy war yàlla déedéet ci lépp même njiit sax da ngay nekk njiit fekk njiit gi nga nekk njiit yaa ngi war yàlla yow toogaloo fi yàlla sa bopp nga fi toogal au lieu nga won jaami yàlla yi yàlla sa bopp ngay wane sa bopp tey laay dégg benn waay mu ne ba ma demee barzaq dajeeg diw moom laa doon seeti diw laa doon seeti barzaq la ilaha illallah ba ma demee gisuma ko waaye may xool rek ma gis jibril di ñëw ànd ak ñaari malaak jibril ñëw ne ma loo doon seet xanaa xale bu jigéen bi nga bëgg a sëbe ma ne ko waaw mu ne ma kooku de mu ngi ara mu ngi la araaf ma ne mu ne ma ne jëlee leen ko fa yóbbu leen ko xaw ma silil lan mu ne non non mu ne ñooñu rek ngay sëbe mu ne déedéet am na ñeneen xaw ma 60 nangam yoo xam ne ñoom laa waroon sauvé mu ne ñooñu diw sauvé na leen ba pare kon yow mun ngaa dellu affaire bi neex na de ba ma demee Barzak ba pare nga toog fii dinaan di lekk cere di naan ataaya naan ba ma dem ñu dem Barzak ñëwaatuñ. allah ñu dem Barzak bi ñuy dem dañ leen a yéen yóbbu leen moom na bàyyi bisa ngi ñëw dinañ ko yóbbu Barzak ñu seet ndax dina ñëwaat. bu mu yàkkamti bu mu yàkkamti man damaa demoon barzak di seeti diw ma dajeeg jibril mu ànd ak ñaari malaak Sénégal ak a ñoo yab jibril jibril moom comme seen doomu ma maam seen doomu nijaay jibril jibril jibril allahu akbar kuy wax rek jibril da yaakaar ne jibril seen doomu nijaay la quoi damaa demoon barzak bul yàkkamti wallahi bis bu ñu la yóbbee barzak doo dugaat ci biir Sénégal ñi demoon barzak ñëwaatuñ yéen ñi toog fii ana seen mbokk yi demoon barzak am na ku ci ko ñëwaat naan ba ma fa demee ñëwaat c'est que man xaw ma ñii dañuy dox yàmbaa xaw ma dañuy drogué wu ba naa tat tëdd guddi di gis ay biddéew bëccëg naan ñëw fii yeewu naan damaa gis Jibril damaa demoon barzak gis naa kii maa sauvé kële am koo xam fi la toog naan maa teeru diw biir aljanna maa ko tegal seize teeru ko di nga dem àjjana ba pare di ñëwaat fii non ba pare yeewu loolu yëpp yëpp sénégalais yi taxaw naan leen damaa demoon barzak ñëwaat gis naa jibril maa doon wax ak moom wala damaa demoon aljanna gis naa yàlla ñëwaat toog fii di wax ak nit ñi nit ñi toog di la xool yóbbu ñu la faan faj la wala yóbbu la dalal xel dalal jàmm xaw ma hôpital bi nekk mbaaw nu mu tudd dalal xel rafaniri fii ñu bëri dañ leen war a dugal ci oto yóbbu rafaniri billahi allazi la ilaha illa huwa ku taxaw fi nit ñi naan damaa demoon barzak ñëwaat dan la war a xam ne yow mii normalo normalo wala ku néew naan man man dama demoon aljanna maa teeru ni tegal ko siis ñëwaat ngay wax loolu nit ñi dañuy gis nga kooku bu dafa war a génn woote téléphone sapeur 18 kaa leen yaa malade mental xaw ma nu ngeen koy waxee malade mental mu ngi fii toog kaay la ngeen yóbbu ko fii ñu bëri dañ leen war a yóbbu faji leen wéruñu yàpp nit ñi weesul nga naan leen damaa demoon barzak ñëwaat kon ma lu yóbbu barzak fan la nekk fan nga jaar ba dem ñi ñu yóbbu barzak kenn indiwaatul boppam allahu akbar yàlla nee na wa min waraihim barzakhun ila yow muy baaxsuun foofu kuñ fa dekk yow muy baaxsuun ngay dékki buñ demee ba gas ba xóot suul la wallahi doo ñëwaat c'est que seen wirde yi ñuy wirde moo leen di yóbbu ci ay jinne yoo xamante ne lu leen neex la ñuy wax ay wirde la ñuy wirde loolu la wirde yooyu moo leen di won lu kenn xamut su ko defee ñu yeewu naan démb gis naa jibril yonent bi sax ba mu gisee jibril dafa xëm mu xumalaak nag ku dem fee naan gis naa jibril ànd ak ñaari malaaka ne ma loo fi ut si koy seet ma ne xanaa xale bu jigéen bi ngay sëwe si xale bu jigéen bi laa waaw mu ne man moom waaw mais Abdou mu ne ko xamoon naa ne mais boo fi ñëwee du moom rek il faut nga sëwe ñu bëree bëree bëree bëri mu lim wax na lim bi ah moom soixante ki xam ma lu mu waxati ah amu leen vidéo bi ah am nga ko yow yow du maa la ko envoyé waaw wala loolu fu ñu jëm ñun fa lañ jëm ay nit yu dem barzax di ñëwaat te Sénégal mel nii du ñu rek la Sénégal boog mu gën a rafet ci àdduna bi problème yi dañ te li ci garaaw mooy koo fi dégg naan sama kilifa nangam hee dëkk ba mu dëkk problème kese la dara rek la wu fa fekkee ñu mun nañ àllaaxira balaa àllaaxira nañ ñu regleel àdduna bi voilà su fekkee ne mun nañ dara balaa àllaaxira nañ ñu defal fii town bi rafet oto yi di naaw kër yi di féey affaire bi ñuy lekk yàpp ak salade ak jus guddi ak bëccëg voilà ah ah ñoo ngi nii di souffrir di torox talibaa ngi sax bu tawee kenn du jàll foo romb ñu baare ko soo léegi Dakar laa yenn maa ngi doog a ñibbisi ñeenee na leen anamu ku mun a dem àllaaxira daal li waa booy bi waxoon ne papaam gis naa yàlla papa bi ne ko gis nga yàlla mu ne waaw gis naa yàlla kay papa bi ne ko loo ko wax mu ne kay waxuma ko dara mu ne ko xaaral ma ñëw mu dem indi bale taxaw xam ngeen bale taxaw mu ne loo wax nga ne gis nga yàlla mu ne waaw rek bañ paa bi dóor ko ci bopp bi mu yuuxu paa bi dóoraat dóoraat ca të të të balaa nit ñi daw ñëw fekk moom sonn na paa bi dóor na ko dóor yoo xam ne ñu jàpp ko taxaw fee taxaw ñu ne ko yow kii lu mu def lan la laaj leen ko ñu ne ko yow lan la mu ne mu noppi paa bi ne ma ah moom gis na yàlla man maa ngi ne aw ma dara xam na ne kër gi dara fanaanu fi mu gis yàlla du ko du ko suñu problème ndax mu réglé ko wax na dëgg wala wax dëgg papa ji wax na dëgg wala wax dëgg ñoom dañuy dem di gis ay jibril di gis yàlla di di duñ ñu ragal suñu bopp duñu wax duñ ne jibril waaye waxal yàlla Sénégal sonn nañ de voilà aw dëgg-dëgg yéen tamit tey jii su ma ñëwoon ne leen gis naa Macky Sall xanaa di ngeen ne ah xanaa rek wax nga ko problème mu jàkka ji wala loolu ngeen may njëkk a oustaz imaam xaa wax nga ko problème mu jàkka ji loolu ngeen après nag ngeen doog a nag waaw waaw lu mu wax rek la ko wax rek allez c'est ça ma dem rek ne non gis naa ko ñu ne la nga naan non non dama ko gis rek imaam moom mën a fen am na lu mu ko wax wax leen dëgg ah di ngeen naan imaam ah waaw am na lu mu ko wax est-ce que jox lu mu ko jox même bu ngeen rusul sax da ngeen ne wala loo voilà mais imaginer yow nga ne gis nga yàlla wala gis nga jibril ak ñun ni ñu mel nii ndóol sonn bay bëgg dee duñ ko wax liñ nekkee non mais mun a fen naan dama doon sauver nit yow bala ngay sauver nit doo sauver sa bopp xaar ba nga dee ba nga xam foo jëm ba pare nga doog a sauver nit yi nañ wax jaami yàlla yi dëgg nañ dem jaamu yàlla topp yonent bi te noppalu loolu mooy dëgg ibudullah wala tushriku bihi shay'an loolu mooy dëgg gi yonent bi de loolu la doon wax sahaaba yi mosu leen toog naan leen dem naa démb berzaq gis naa jibril jàpp naa ci sàmba géej yonent bi da wax sahaaba yi dem leen ngeen jaamu ci yàlla nañ wax loolu nit ñi ku nekk mën ngaa nekk sëriñ waaye waxal nit ñi dëgg waxal nit ñi nañ dem jaamu yàlla waaye jàpp jaamu yàlla yëpp sa waay indil leen ay musiba yoo xam ne nga gis caaxaankat boo xam ne dafa toog naan leen gis naa jibril nangam ak nangam gaa yi di yuuxu di doy na waar daal Sénégal ñu ne sunu borom nee na subhanahu wa taala lu tax ñoom ñu nekk ay naafiq bi ma axlafu llaha ndax lanu war yàlla maa waaduhu lañ ko digoon lan lañ waxoon yàlla ñoom démb bi ñu amul dara cey bu ñu yàlla mayee ñu am daa di war yàlla moo tax ñu nekk ay naafiq bi ma waaduhu wa bi ma kaanu yakdibuun ak lañ doon fen naan danañ def lii danañu danañu jaamu danañu saraxe danañu woor danañu yàlla mu ne dañuy fen borom bi ne alam yaalamu xanaa ñoom xamuñu anna allaha yàlla yaalamu xam na sirrahum seeni secret xanaa xamuñu loolu ki toog naan man dem naa alaxira dem naa barzaq gis naa diw man maa génne ñoom diw dem naa aljanna maa fa teg siège maa teeru diw dem naa fële yàlla nee na xam naa lépp wallahi egguñu ci asamaanu premier bi ñu ci bari ci sën yi la ñuy fanaan xam ngeen sën yi sën yi sëriñ bi da doon wax taalibe yi fajar gu jot rek day cëppeelu vir su nga ne foo jóge rek mu ne kaw asamaan ndeke ci kaw armoire bi lay lay tëdd mu biddanti taalibe yi yow rek gis ko ci kaw armoire bi wala yooyu rek am na ci ñoo xam ne ñeme yàlla goo ñeme yàlla goo xam ne da la jël ay numéro naan numéro jibril dañuy woo jibril man man sama problème du ñooñu di wax de parce que man ñooñu conseil diruma leen ay nit ñii dama yàpp ne seen xel yi wirdi yi ñoo leen dofloo ñu dof mais ñi ñuy waxal man ñoo ma jaaxal ñi ñuy waxal nit ñëw naan la ci jibril laa jóge wala ci yàlla laa jóge nga toog di ko déglu loolooy wax ci loolu mooy wala damaa demoon léegi àllaaxira ñëwaat ah loolu nu ko nit di waxee ay nit loolu mooy problème fii nii kenn demu fi àllaaxira kenn demu fu fenn ñëpp ci àdduna lañ nekk ku génn àdduna doo fi ñëwaat bu fekkee loolu la kay seet leen ñi ñi leen gënoon ngand nekk ponkal yi génn àdduna ndax ñëwaat nan booy seeti nit àllaaxira muy régler ay problème te moom mu mun a ñëwaat lu tax ñëwutul moom nga defe ni nit dina fi bàyyi këram bàyyi fi say soxna bàyyi say doom bàyyi oto yi bàyyi àdduna bi nga dem àllaaxira tëdd foofu nga bàyyi fii te nga mën a ñëwaat doo ñëwaat chaque jour ñi ngeen di gis ñuy tukki du dañoo mën a ñëwaat ñi ngi ñëwaat ñi mënta ñëw ñoo fa des de waaye ñi mën a ñëw nga xam ne am nañ ay këyit ñooñu ñaari weer yu nekk ñetti weer yu nekk waaw saa ay ñëw nga ñëw naa biig waaw yow da yàggoo ah léegi dootuma yàggati ana diw ah diw de bu leen xaar mu ñëw lu tax amul këyit ah fekkee àdduna bi dong ngay nekk dem États-Unis bi amoo këyit ñaata at nga fay def am naa benn frère boo xamante ne instant yi xanaa léegi mu def États-Unis 15 ans bi may wax ak yéen 15 ans léegi mu def ko fa lu tax mënta ñëw boo ko nee rek mu ne la awma këyit ah àdduna gi ngay nekk amoo këyit mënoo ñibbi fi nga jóge woon. nga jóge àdduna ñu suul la àllaaxira nga ne da ngay ñëwaat fii wala nga ne da ngay jóge àdduna dem àllaaxira ñëwaat parce que xel nangu na ko nañ seetaat li ñuy wax nit ñi nañ seetaat jaamu yàlla yi li ñu leen di wax yii yëpp nag lu ko waral mooy ñàkk diine rek ak pas-pas bu bon aqida bu bon moo waral lii lépp sunu borom nee na alaa yaalamu xanaa xamuñu anna allaha yàlla yaalamu xam na sirrahum seeni secret wa najwaahum ak li feeñ la ñuy déeyante di ko wax ci biir néeg ya nañ wax taaliba yi lii di leen dee ndànk ci suuf pour yàq leen ah maa yusirruunahu fi nufusihim la ñuy nëbb ci seeni bopp wa maa yuxfuunahu ak di ko nëbb wa maa yatanaajuuna bihi ak la ñuy déeyante est ce que xam ngeen ne gars yi dañuy teg ay dil ci kaw taaliba yi yenn saa yi sax ñu jël ay taalibe ne taalibe bi da ngay dem nga ñëw rek nga salleeru yuuxu am na ci benn waay boo xamante ne ndeysaan danaan joxe warga dégg naa warga bu joxee warga rek ak gaz ak lépp ne ataaye leen a toogal fi nga ataayaanu jël satala gi daal di jox taalibe bi jël warga beeg teg su ko nee suukar mu ne ko noo ataayal noonu taalibe bi bu xiimee rek affaire bi saf suukar kay la allahu akbar joxuma suukar ci am na suukar ndeke sëñ bi ci biir satala bi lay def suukar balaa gaa yi ñëw mu ñam ko ba mu saf mu noppi gis nga xam nga ne ndox mi saf sàpp suukar buñ ko ataayee ah jaru def suukar léegi nag ku mel ni man bu ñëwee nag ñu jox ko warga bi mu ngi ni toog baraada baa ngi nii lépp a ngi nii kii a ngi nii jox nañ ko lépp naanaa beeg tout waaye joxuñu ko suukar mu def lépp ba pare mu ne ko ñamal mu ne ah mu ne ko suukar naa ko depuis ca àllaaxira loolu bu dee saal bu mel nii nu ñuy def ah ku dem day waat billaahi maa ko fekkee fekk xamuñu ne suukar bi ca baraada bi ca satala gi ca guddi lañ ko suukar ca guddi xoolal xoolal dil yooyu léegi doomu aadama yi def bara yooyu ay martaba yooyu ñuy xëcc martaba yooyu mën naa dara maa def lii maa def lii yooyu amul solo xam nga lu am solo mooy nga fexe ba dugg àjjana maa def lii maa def lii maay sëfe taalibe yi fexeel yow ba ba nga sëfe sa bopp maa leen di rëccal wala maa leen di ëllëg fexeel yow ba nga gis sa bopp aljanna yàlla waxoon na Moussa yaa Moussa laa taaman makri hatta tara nafsaka fil janna Moussa bul wóolu de dafal ndànk ba nga xëy gis sa bopp biir aljanna loolu mooy wax ci ay ay maa def lii maa yooyu amul benn sens ixwatal iman borom bi nee na wa anna allaha yàlla allaamul xuyub moo xam secret yi yàlla yaalamu kullu xeybin fil ard wa fi sama yàlla xam na bépp secret ci asamaan ak suuf yàlla dara nëbbutul ci moom lépp la yàlla xam laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama dara nëbbatuwul wa huwa maakum aynama kuntum yàlla mu ngeen ñun fépp te lépp la xam dara nëbbatuwul ci yàlla allaamul xuyub moo xam secret yi moo xam yu nëbbu yi moo xam tout fi mu nekk ni ñun ñu toog kenn ku nekk sa xol xamoo sa morom lu muy xalaat waaye yàlla jalla jalaalu xam na ko sëpp na ko bu yàgg xam na ne fii léegi bu tafsir bi pare ku nekk ñun loo programmé fii ñu toog nii ku nekk yaa ngi programme toog yàlla xam na fi nga jëm bu ñu paree tafsir yàlla xam na fooy fanaani yàlla xam na guddi gi li la fi nara daal xam na li ngay reeree yaa ngi di toog ñun ñëpp yàlla alaamul xuyub ayyuhal ahbab gis nga nag loolu lu muy tekk ci yow su yàlla xamee lépp kon da ngay noppalu da ngay noppalu ndax loo nar a defi lu jaadu da ngay xam ne yàlla xam na ko nga toog te war ngaa rus yàlla di la xool di la gis ci yenn yu jaadu di kon loolu mooy darsu tey ñoo ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh